Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niass dofu maam Khalifa Niass le marabout du peuple numéro téléphone am de 75 644 77 77 wala 78 muy nekk fi nga xam ne moo di Dakar ba Kaolack moo leen di may seen émission préférée. wurus bu Wally Ballago Seck ngalam bu Sidi Diop ak suite game bu Viviane Ndour ñetti way yi la mooy ñetti way yi nga xam ne moom la sénégalais yi di gën a consommé ci fi nga xam ne moom moo di ci TikTok bi foo demee ci TikTok. tiktok bi nag néew na nga dugg ca ba génn ca te gisoo ca benn vidéo boo xam ne wurus bokk ca wala ngalam wala ñu dee génne ca suite game muy ñetti way yoo xam ne amu ci benn bu ci am aw clip audio dong la ñu ko def def ko ci youtube bi waaye terewul collecté nañu ay millions de vues ci biir youtube bi loolee nag mooy firndeel ni sénégalais jamono ji jox nañu bopp li nga xam ne moo di ñetti way yi la muy wurus bu Wally Ballago Seck ngalam bu Sidi Diop ak suite game bu Viviane Chidid moom mi di Viviane Chidid gannaaw ba mu génnee bokk ko ak ki nga xam ne moo di Bass Thioung jamono ji le gars yi ñu ngi koy reprendre tiktok bi di ko reprendre fu ne ci dégg suite gam foo tourné itam di dégg ngalam bu Sidi Diop noonu itam la déggee wurus bu Wally Ballago Seck muy ñetti way yoo xam ne fës na loolu jamono ji ci réseau social bi ki fësaat ci réseau social bi moom moo di Queen Biz Queen Biz ginnaaw bi gaynde Sénégal yi defee seen ñetti prestation ya benn ba ñoo am ca ndam dugal ca benn bii Sadio Mané dugal ko ñaar ya ca topp nag ñu def mat nul boo xam ne zéro bi partout la ci la Queen Biz génn ja daal di posté benn bi xam ne ne ma yi yaa ngi lëmbaajoo ci mbaali gaay boobee ba tey ñu ngi feetu moom mi di kiwin bi ginnaaw bi nga xamee ne la ne suba la ñuy ak ñi nga xam ne ñoo di waa Cap ci huitième de finale bu coupe d'Afrique bi ci la génn benn teaser boo xam ne club la bu muy way gaynde yi loolee nag jik nu loolee tax na ñëpp delluwaat fa ñu ko doon yekkee musiba ak mbelangaan di ko xamal ne ko bul way ñooñee ñëpp ñoo deltuwaat ginnaaw di ko jéggalu naan ko bu ñu yëgoon bàyyi la nga way ndaxte kat jik nga ñu sa way bi baax na waaye nag ñu bare bare ñu koy ñaan naan ko Queen Biz bul ko génnee noo lépp dee ko dagg-daggee ba keroog muy ko dagg-daggee xaar nga dagg daggee ko itam ba ñu jël coupe bi nga soo ko génnee lépp ba mu jeex tàkk ndaxte mbir mi jik nga ñu loolee yow nag sa way baax na continuel di way ñu bari ñu koy njaay cekk jamono ji la Queen Biz moo ëpp buzz jamono ji fii ci Sénégal aadamoo àdduna ci mbirum Queen Biz googule moom mi di aadamo la muy sàkku ci Queen Biz moom moo dina naa la xamal ñaar nag bis bu ñu dóoree Sénégal di nga xam ne sénégalais du mbokk du xarit ni ñu lay bi nga xam ne nag yow yaay héros bi fii ci Sénégal keneen ki mu àddu ci moom moom gannaaw ba ma gisee maire bu Yoff bi xale jigéen ñi kenn ku ci nekk jël photo bi nga xam ne photo shooting bi la ñëpp naan dafa rafet dafa boo dafa jantal damay tuxi ji Yoff daal di fa am appartement waaye bi nga xamee ne waa Sénégal set dem nañu ba këram daal di koy interviewé ñëpp gis ko xool kanam gi xam ne bokkul ñoom ñëpp dañoo décroiser loolee la ko Adamo nduróoleel mooy nga dem ba restaurant woote ne leen dama bëgg benn pizza nga ñëw ñu daal di lay tegal ndam be noone la ko aadamoo waxe ba noppi itam boole ci ak ay reetaana pendoo gise ma ngay reetaan ak di bége ak borom këram bi moom mii di pendoo gise gis nañ ko ci benn vidéo boo xam ne ma nga ca ànd ak këram di sinap ak di teg wooyu waali balaago sek bi nga xam ne ma nga cay bàkk ak di cekka njaga euro ma nga naan suñu borom bu ma bëggee na ma bàyyi ak njaga euro moom mii di pendoo gise wooy boobee la reprendre di joxoñ borom këram ba mel ni ku naan yàlla soo ma bëggee rek bàyyi ma ak sama borom kër bi la bàyyi ma ak nit ki nga xam ne moo ma takk teral ma moo ma defal lépp lépp ci àdduna loolee itam penda gisee mu ngi mel ni ku ciy jéem a gaaruwaale bojo bojo yi nga xam ne yàq dong a loolu dong moo leen tax a moom mi di penda gisee mel na ni ku leen di mise garde jox leen benn vidéo boo xam ne mu ngi leen di xamal ni nag man mii sama jëkkër daf maa nopp ma nopp ko waaye tamit nag ñun ñaar déggoo nañu yàlla suñu borom defal ñu tawfeex ba lépp loo xam ne cat la mën a génn ci ñun ki génnati moom moo di Marichou Diop moom mi di Marichou gis nañ ko ci ay photo yoo xam ne ma nga ca post posté wu defaru ba jekk daal di defar ko affaire boo xam ne jamono ji la ba mu ko posté ñëpp a ngi cay waxtaan naan Marichou génnati na ak rafetaayam ba moom mi di Marichou ñëpp xam ko ci Sénégal ci li nga xam ne moom moo di film boobu le ñu naan Pod et Marichou ginnaaw ba mu fa amee jur jàng moom ak Billy génnatul ci benn série waaye terewul yenn saay day jékki-jékki rek génn ay photoom daal di koy posté wan Sénégalais yi ne leen ba tey maa ngi fi joxe ab signalam xam la ni maa ngi nii demuma fenn génnuma Sénégal te itam maa ngi wéy di gën di dund liñ fa bëgg a dundal waa ànd sàmm ji koy bañ ko muy mbirum góor jigéen ànd sàmm jikko yi def nañu aw conférence de presse daal di cay addu gannaaw ba ñu dugalee benn loi loi boo xam ne dafay criminaliser lépp lu jëm ci mbirum góor jigéen fii ci Sénégal assemblée national daal di leen koy lànkal ñoom ñoo ñooñu nga xam ne ñoo lànk boobu lépp toll ci juróom-ñeenti député juróom-ñeenti député yooyu leen ànd sàmm jikko yi dal nañ ci seen kaw xamal leen ni leen ana lan moo tax ngeen bañ bi lépp loi ñoom nag dañoo nekk ay taaliba yoo xam ne dañuy jaamu exécutif bi maanaam nguur gi moo leen di sant ñuy def waaye sénégalais yi lijjanti wuñu leen ñoom yi taxuñu leen toog foofu le ci assemblée nationale waaye nguur gi lañu fa toogal ba noppi di jokkook lobby yi ngir mën a daganal fii ci Sénégal mbirum góor jigéen ànd sàmm la mu wax ci moo di ne nañu jéem a ko njëkk criminaliser boo demee ci koo dàq di faaxan loolee nag moo li tax ànd sàmm jikko yi di ci xeex waaye nag nguurug Sénégal dafa jug ngir mën ko promouvoir loolee la ñuy lànk fi ci Sénégal Sénégal nag dëkk la boo xam ne duñu leen nangul benn yoon ñu fiy indi ak mbon di ko fi installé loolee tax na ba waa ànd sàmm jikko yi bi ñu jàkkaarloog taskatu xibaar yi fas na ñoo jël beneen bu stratégie boo xam ne ci la ñuy xeex ngir luwaa boobale ginnaaw bañ ko rejeté ñu daal di jilaat beneen wu yoon boo xam ne danañ ca jaar ngir mën xeex ba Sénégal gi yëpp xam ne ànduñu ci tey tam duñ ci ànd ba àddinay tukki ñu fiy daganal mbirum góor jigéen ma dem ci ministère de la santé de l'action sociale jëli leen point covid du tey jële di jeudi yem ak 27 la santé et de def nañu 1519 tests ci ñooñu la ñu am ca 96 ñu amee yees mbas mi di cas contact la ñu ca mooy ñi amee mbas mi jaxasoog ñi amee mbas mi ba far fa jaare am mbas mi 91 cas communautaire la ñu ca mooy ñi amee mbas mi taxamuñu fan la ko jëlee cas garaaw la ñu ci lalu réanimation ya ñaari bakkan yu faatu la ñu nemmeeku fii ci Sénégal démb ci mercredi bi yem ak 22 décembre bi mbas mi tàbbee ak léegi cas lañ fi déclaré positif ci ñooñu la ñu fàttalante ba ñu fanweer 1939 ñàkk ci seeni bakkan 3697 nekk sous traitement jamono jile ni ma ko baaxoo defe ci samay kàddu mbaas maa ngi ci suñum réew nañu sàlloo